gars yi bu ñu leen ziyaaree ba pare lu yees ci information yi tey jii bëri li nga am da ngeen ko am ci moom waaye kii di euh, Sadio Mané ñancoo national eddu euh, Doudou Mendy moom it mi ngi ci biir sa mbaxloo bi équipe bu Barcelone bi nga xam ne fi mu toll nii daanaka gars yi ñu baree bare boo amul sax danañ fekk Messi ñaar nag moom njort nañ leen ci ndax gars yi jal nañ leen ay dollars yoo xam ne tey dollar neexut a delloo du avance bu gaa yi delloo moo tax ñu njort ni boo amul sax nag carte gi mën naa jaxasoo foofee Euh, waaye gars yi def leen abonnement yi bala ñoo dem ci dara ak cant ak ngërëm gi nga xam ne ñu ngi leen koy ameel bis bu ne di njukkeel boo xam ne li ngeen nu jox lañ leen di delloo sama gaa yi ne Touba dëkk bu sell ba ndakaaru njaay fàttewuñ kenn yow mi tamit nga xam ne am na looy jaay ci tabaski yi nga bëgg mu jar boo nu wooyee mën na noo def déplacement lijjanti ko ñu toj ko ba mu toj ko roj dabbar ñi ko ba lépp loo xam ni am nga ko ci yéene lépp sotti fekk Barcelone moom mii ngeen gis équipe bi waaye ñin ciy bëgg a tudd nekkatun fa daanaka catalan yi man nañ cee bañ a mer ndax catalan yi dañoo bëgg équipe bu ñu renforcer kee ma fele sa ci kaw ngeen gis ko mu nekk busket moom it bàyyi fële ca FC Barcelone gars yi nag Messi ngi koy xëcc ci information yi nga xam ne moom lañ am loo xam ne ay rumeur la bu ko defee moom moomee mu fekki gonek Argentin gi fee ca Amérique nga xam ne loolee dana am solo waaye Jordi Alba tamit comme moom demagul fenn te it mbiram léeragul fenn kon gars yi. mën nañ ko doxal fële ca Amérique nga xam ne loolee dana am solo bu baax a baax. Euh, gaa ñi nag ñu xam ni kon loolu lu am solo la ci li nga xam ne mooy information yi nga xam ne saxal na euh, gone yi Barcelone yi nga xam ne fi mu toll nii euh, kon seen màgget yooyee noonu nu ko waxee ña nga bëgg dem fële ca États-Unis d'Amérique lépp lu fa am ci information gaa ñi danañ leen ko indil ba mu leer ndax lu leer rek la ñuy teg ci taabal ji ndax yéen ñu ni topp bëgg ngeen bu ngeen fi bëgg nañ bu ngeen fi jógee lépp lu ngeen am ci information xam ne information bi dëgg rek moo ko lal te ay caaxaan ñu nit gëstu. du duñu ci jóg benn yoon ci gox yu fasantikoo yi ne ci Europe ak Amérique ba ci Arabie Saoudi gëstu information yoo xam ne yu wér la te wóor bu ñu leen ko fi tegee ndax nit moom jàpp nañ ni lu wóor mooy tax gaa yi di ko topp information naxa a xandang boo ko dee joxe gaa yi dañ lay daw te dañu bëgg nag ngeen continuer di abone ndax information yee wér wóor li wérte te wóor mooy Égypte qualifié na ndax daje naag gine goo xam ne du Sénégal moo tax it da ko noggatu ci ab dëkkam ñaari bal ci benn seen diggante ñoom ñaar moo tax Égypte qualifié na ca boobee Coupe d'Afrique nga xam ne Côte d'Ivoire lañ koy amee Guinée nag njaw na naw xam bin ba tey ndax ñàkk victoire boobee nga xam ne ñàkk na ko euh, kon na mu préparation digganteem ak Brésil samedi baaxul dara baaxul dara lii xeeñ ci du Édouard di fële ca France ndax daanaka équipe yéen ko fay jox ay euh, FC Nice euh, Nice googee nga xam ne ma nga ca France nag ba ci Olympique de Marseille ko équipe yooyu bëgg nañ ko loole nag jàpp naa ni bu fekkente ni mën na caa dem Ah, gis naa ni lu mën a nekk la waaye ci beneen côté bi jàpp naa ni Edouard Doudou Mendy ay mbiram daa wàcc lool ba gone yi français yi ah, di ko noggatu ndax affaire yi bu fekkoon tàng na jëpp daanaka ang um, kon gone yi français yi duñu ko jege Angleterre googee ah, fa lay ji ma xëccoo ay mbiram waaye nag noonu la mën a demee parce que sport moom moo demee noonu yéeg ak wàcc la am mais boo nekkee ci kaw nga def li nga war a def teyit moom def na lu bëree bëri loo xam ni war na koo def ci digganteem ak Sénégal ndax góorgóorlu na bu baax a baax ba am fi place boo xam ni heure bu nekkee mooy taxaw ci kaay fekk na booba euh, place bu baax Sadio Mané am na ko ci Sénégal te du ca mos a jóge gaynde ak sénégalais gi suivre ngeen entraînement bi nga xam ni am na ko démb entraînement boo neex lool moom it gone gi mu promettre gars yi ni dana dikkaat ak doole ci équipe nationale dikkaat ak doole nag ña ngi koy xaar dëgg-dëgg ci contre bene waaye nag ci contre équipe bi la nga xam ni mooy bu Brésil Bénin gi gars yi ngi koy xaw a soofantal waaye nag Sénégal bu ca gañaa day am ndam kon Bénin googee war nañ góor góorgóorlu bu baax a baax doole jàll ci Brésil ñaari match yooyu yëpp ñu soxla ca carton plein euh, sama waa ji seen waa ji di ñancoo national kon ñu ñaanal ko tawfiix ak jàmm ak salaam ci li mu dëgmal ci ay match yoo xam ni match yooye ñi ngi koy ñaanal lépp tawfiix lépp jàmm ah, gars yi wat boo rafet bi nga xam ne sama waa ji seen waa ji ah, di ki nga xam ni moo nekk Bellingham supporter yi Real Madrid bi kontaan ci moom bu baax a baax su ma nee sama waa ji waxeen la rek boo xam ne dama koo tàmm pour ñi nga xam ni dañu indi ay polémique di wax ay supporteru diw nga yooyu laay sóoraale ah, ñu bañ a jàpp loolu xam ni ñëpp suñuy waay lan dagg na bopp bi maanaam yeesal na na nga xam ne mooy ak wateefam waaye nag difu ko wateefu bandi def na ko ci euh, normal teg ko ci temps ak heure loolu bu ngeen gisee ñu andi ko maanaam dañuy dugal ci euh, présentation bi nga xam ne gaa ñi war nañ ko koo présenté euh, suba ak jàmm bu ma juumul bu ma juumee ngeen jubbanti ma présentation boobee nag xam nga ni kenn comme ci man di doon ci yéen daanaka boo amee xew dangay ngay jiima watu wala nga am noo def dóor net bo nel bu xong cur bu dee Sénégal nga ne moom it nii la ko sentir ci ndaje mi Real nag ma ngay am lu mu waaj moomit am na lu mu waaj di ko indaale kon bu yi dajee na nekk ay surprise jaa yi ngeen jëf cant gërëm ñel na leen ci ànd bi ngeen di def ànd boobee am na solo yàlla na jëm kanam ñu ñaanal réew mi jàmm ak tawféex ak ki jàmm